yenn jafe-jafe yi ñu seetlu moom moo nekk ba tey principal coalition bu opposition bi mu ngi waajal nag bu baax a baax présidentielle bu 2024 njiitub cadre de réflexion pour un développement intégré ne am na yaakaar bu baax a baax ci yooyu la jongante. yaakaar naa ne président bi ñëw ci coalition yooyu askan wi rek la mun a jóge en tout cas li fi passé nii loolu la wone ndax boo xoolee élection locale yi performance bi nga xam ne def nañ ko 81 communes yi nga xam ne rek jël nañ ko ak taux di au niveau national nga xam ne presque am na ñun ci suñu xayma dem na presque 40 pour cent. ñu ñëw ci élection locale yi aussi gis nga ko ñu nekk presque coude ak coude ak euh, ak la coalition euh, Benno Bokk Yaakaar daanaka. naam seyal nañu parti bi fi doonoon Pastef di parti boo xam ne dafa dëggaloon boppam ndax moo gënoon a fës ci opposition bi euh, ci juróom-ñetti at yu ñu ko taxawal loolee nag am na njeexital ci coalition Yewwi Askan Wi waaye buñ sukkandikoo ci professeur Datt coalition bi ba tey mu ngi taxaw. donc du yombal liggéey bi moom loolu am na waaye nag euh, vraiment du du du du taxawal liggéey coalition bi ndax ñu ngi ci ñu ngi liggéey ñu ngi def suñu ay réunion conférence des leaders ñu ngi def suñu ay rencontre di waxtaan ak kilifa diine ak ay kilifa aada yëpp pour waxtaan ak ñoom ci situation euh, taskatu xibaar yi fësaloon nañu fi bu yàggul dara ne kii di njiitu parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité doon principal parti d'opposition bi te ñu seyal ko fin juillet danu ko génne ci fichier électoral bi. waaye loolee sax taxul ba coalition Yewwi Askan Wi ne noppi na ngir relever lépp luy défi bu koy xaar.